www la carrapide point com ci sa émission From the Hood bu ne ngay am dañuy def rap rock reggae acoustique. ñu daje benn waa joo xamante ni ne se présente plus moom Lamp mais am lu bëree bëri ci biir. Lamp salaamaaleykum. waaleykum salaam Baye Fall. Euh, Lamp gars ñenn ñi ne dañ la namoon ñenn ñi ne dañ la doon dégg mosuñu la gis ñenn ñi ne foo réer.

ak ñi doon topp hip hop bi wala leen xam dinañ ma xàmmee maa ngi nekkoon góob bu tudd Guney Muslim waaw Guney Muslim ku boo xam ne yàgg nañ doo gars yi xam nañ ko ci hip hop bi par exemple di jaawa di ak ñeneen ak ñeneen déggati PBS Pifois Daga ji comme les grands ñi wax ñoom la ñu xam fii Sénégal xam nañ parce que yàgg naa jeune sa seen première partie. mais lamp dafa nek ko xamna mom moom léppam da ko tëb da ko jox Sëriñ Tuubaa comme son len l'indique mam lamp mam lamp nak su ma ko tuddee mooy Sëriñ Cheikh Khady Fall ibnu Sëriñ Afane Fall naa ko koy bigab ci ko nuyu di ko siyaar di ko màggal di ko ñaan mu yag fi ci wér dégg nga présentation bi doon na lu doy waar lu spirituel lo tegu ci temps selon ni ma ko gisee man mu nekkoon mam lamp ñi ñenn ñi xamul woon ki ñenn ñi xamoon gëjoon ko gis borom guitare bi loxo bi macha comme tu l'as dit tout à l'heure 94 nga démarré ci yenn place a fait un parcours très cool a participé ci le gars il participé ci. j'ai participé dans une compilation par exemple qui s'appelait Euh, avant de il y avait, il y avait une compilation. Ouais. Pendra, c'était Optimist Production. Pendra, Mingeneron, c'est mon compilation. J'ai oublié parce que c'était en 97 comme ça. Il y avait les pifois, il y avait tous les grands musiciens ici, les rappeurs. J'ai passé pas mal de Par exemple, il y a une compilation qui est sortie en États-Unis, Dakar Underground, le rap sénégalais produit par un Américain. J'ai participé là-dessus, j'ai participé aussi. J'ai fait mon album en 2001 avec une un grand producteur par exemple, Winchester. Euh, ça a passé dans tous les chaînes par exemple un album qui s'appelait Yai. Je vais jouer ça tout à l'heure par exemple. Parce que c'est un morceau que quand je chante ça, hein, les gens se rappellent de moi. Turbi, bi ak jëmm ji kàddu yi dañoo nduroo. Baye Fall du daw du ragal. Euh, Mame on ana tey naka nga musique parce que pionnier nga franchement parler que ça soit musique acoustique bi wala rap bi mais dama bëggoon nga laalaat tuuti rek ci tu xaw a xoolee tuuti ci côté hip hop bi. ana naka nga ko depuis 94 ba fii nga xamante ni mooy 2012 faire avancer parce que par exemple il y a un gars par exemple un euh, matador je l'aime bien parce que moi, il est un d'art. Il a un bon esprit une une ouverture te gëm le li muy def ak ñeneen ci par exemple ça avancé mais les règles qui sont contesté par exemple nous ne sommes pas des américains mais vous ñu qu'un américains parce que y a un xam ne mais dafa am loo ça soit ça soit être naturel ça doit être naturel par exemple ça doit être naturel mais ça avance ça avancé parce que les gars ils doon tech avant avec léegi bokkul léegi c'est musical dañ ci dañ ci dégg dañ ci gëstu mais am na yoo xam ne ça waruñu parce que am na yu bëri les gens ils l'ont parlé avant nous wax nañ ko bu yàgg donc waruñu ci dellu on doit avancer de l'avant

parce que clip yi gars def avant ak les ñuy ça fait différent parce que tamit bon nous li américains, def américain def jamaïcain on peut faire ça mais à notre manière par exemple à notre esprit à notre suñu ni ñuy dund ak ni gis ce que je vis ce que j'ai vécu aussi ça fait partie de ma musique par exemple parce que tu as ma guitare di woy c'est grâce à Mame Cheikh Fall je le dis devant tout aussi bëggoon naa nga def benn témoignage comme tey da nga fi taxaw taxawaayu euh, pionnier wala leader wala benn grand boo xamante ni nii euh, il a pas mal contribué ci domaine hip hop Galsen euh, tey ana naka nga jàngatee li nga xamante ne mooy coow lii raam ndànk-ndànk mooy que ni underground bi maanaam booyee ci suuf. Mhm. dañu am mer bu ñu denc seen xol. ne grand yi jàpp ñu si. ñoo doon tere avancé. grand yi aussi am benn réponse bu ñu leen répondre mooy que ni euh, booy yi couleur bi ñu indi. Mhm. bokkul ak bi bi bi fi amoon. booy système rap bi. c' est pas professionnel moo tax mënuñu déggoo ana naka nga jàngatee loolu. par exemple booy nekk ci underground bi ñoom ñooy rappeur parce que ñoom dañ lay wax dëgg bi dañ lay wax social bi. dañ lay wax lii xew ci politique bi ñoom c'est des rapports parce que li ñuy dund la ñuy teg te xam nga kii xoslu ak ki dul xoslu mënuñu yem ki nekk ci métti ak ki nekkul ci métti di yëpp bànneex mënuñu yem ke li muy génnee ak ki li muy génnee ça fait ça mais tamit nous respectons ñi ñu jiitu ñu ngi teg te yàlla may na leen xewal ñu ngi def mais tamit comme que ñoom amuñu ñuy boobu ñun ñun ñuy nekk ci suuf di ñafe

Moi, je ne suis pas allé là-bas pour me montrer. Moi, je suis allé là pour véhiculer un message. Par exemple, mon tartami, le bruit de mon coïde de trop ligué. Mais le temps viendra. Mais ça m'a beaucoup une hip-hop, à qui l'un avec l'un. liggéey Wi-Fi. ce qu'on va faire moi, c'est ko mu dugal benn faire bu ndaw souffler soufflé le temps que nous devons. soit il a du rôle. J'en kawsara faal je leeriyaa géeju al albarakati faal baay naa la laa ilaaha illallah faal jaaraama maam Chérif Asan sarafal Ki sumaludak keman Syekh Ibrahim Fal Abu Rijal Fal Ya Kure Fal Nech Fal va le nerf tout le monde va le neex neex gisuma lu dàpp fal. Fall Fall Les L'émission tire presque à sa fin. Euh, man blanc ah, On a lan moo la euh, musique spirituelle bien vrai que acoustique c'est musique mais on a vu que yoo xamante commencé

mu engouement bu yëngu won lool ci di wax dafa a wàcc. ñii Abdoulaye qui wàcc. été il est temps toog bien vrai que xamaguñu ni que ni toog parce que plus de 13 comme 14. mu amoon yu bëri yu amoon ci réew mi ñenn ñi ci seen bakkan ñenn ñi xam nga ci ay ana yow en acteur culturel contribution nga amoon ci loolu xam ne li na am dañuy parce que tamit euh, saa su ne par exemple au temps de nii la demee woon y' a un yoo xam ne le peuple voulait un changement yàlla mooy def lu ko mu nag ba gars yi bëggee changement yàlla dafa ñëw mu dindi Abdou Diouf teg fi ñu sante ko yàlla. ci kanam tamit yàlla ñëw Abdoulaye Wade ñëw ak ñeneen ñu ñëw tam bëgg a ni réew mi doxul par yàlla xëcc Macky teg ko jeexal Abdoulaye Wade teewul ne ñun sax ndigal lañ toppoon ndax Cheikh ndigal moom dañ ko bëgg te yàlla tax. te Seera la fi nekkal mu ne nañu booteel ka mu àndal loon te ka mu àndal la mu àndal damay leeral moom jàppul Ablaye Wade da ngay lii wala lee Cheikh Ndigal dafa newoon ñu yàgg na ànd ak moom coloré la nañ ko voteel loolu lañ def mais yàlla nag mooy def la ko neex teg fi Macky Sall Macky Sall moom liggéey moo ko tax a jóg yoonu yokkute yoonu yokkutee nag mooy lépp yal ko suñu borom jàppale mu jëm ca kanam Sénégal avancé mais amuñu benn yi jot a am yëpp tamit yaanaa maar yooyu yëpp am na mais yooyu yëpp mënut a ñàkk ndax saa su yëngatoo gars yi dañuy wax saa su yëngatoo la ko yëngalatoo ko doole te sëñ Tuubaa moom mooy ba mu lépp moom la kon Sénégal jàmm lay am ca kanam lay jëm barkati Cheikh Ibrahima Fall. dégg nga ko kontaan et puis affaire bu nice and nice mu nekkoon lamp daje woon ak NDK slash Bandihood tey daf ma jox sama tur dëggantaan ndax tay ci akhlu bi lañ dajé muy akhlu mom Cheikh Fall lamp ana tay ban affaire bu ndaw bu film bu ndaw booy tëjalee. waaw bi may tëjalee gars moy mooy morceau bo xamné j'ai j'ai sorti ça en 2004 avec un producteur qui s'appelle Winchester le Jamaïcain dont je te parlais. imam La la la la no boy La la no boy La la la la la la la La la la la la la la no Enfant du ghetto vie appartient à ce qui se lèvent tôt, enfant du ghetto, mais pas toi La vie appartient à ce qui se lèvent tôt. fighting mi fighting se mi fighting mi Mam Sera Fall di nakal kamal xat fuutra rijal babul muridina le noble serviteur de Khadim Rasoul jërëjëf saa su ok gis nga ko mu nekkoon lamp Baay Fall tigi tigi tigi don wax ci lo réeme yéeme manam acoustique spirituelle gis naa lu mais bi c'est la première fois que koy gis 100% Mam Sera Fall 100% Baye Fall ak lamb c'était sa boy NBK slash bandeho Hood ci sa émission From the Hood www.tomcarapé.com Pull up man La la la la no boy La la no boy